salaam sama gars yi tey ñëw ci dernière information yi nga xam si ne day am ci Evolve V4 point 0 mais laataa ñuy ñuy commencé bi nag tey bu leen fàtte si ngeen abonné bu leen fàtte aussi ngeen like vidéo bi dañuy ñëw ci dernière information yi ñu ne kone bi da koy changé am na ay changement yoo xam ne si ne changement yu ama am solo yoo xam ne kone bi da def ci Evolve point 0 point 0 nga xam si ne day am ci Evolve V4 point 0 mooy gars yi Evolve v il football boo daan joué doo am option si temps bi maanaam doo mën a modifier temps euh, par exemple bu fekkee temps bi 6 minutes la doo ko mën a def 10 minutes fenn rek nga mënoon a modifier temps bi muy ci ci match ci match avec mooy match yi nga keneen match noonu rek nga mënoon a modifier temps bi muy match match d'ami xam nga match d'ami rek lan la joxoon option nga mën a modifier temps mais léegi nag da lay jox nga man a modifier temps bi ci match événement yi wala match championnat bi si kon si football 4 point 0 point 0 léegi danga am option wu modifier li xam si ne mooy temps bi par exemple bu defee nii par exemple bu duggee fii xam nga fii nii doo am option ci temps bi voilà ñu dem paramètre léegi gis nga xam nga boo nee paramètre niveau sa bi rek euh, lan la fay defal aussi duñ la fa defal temps boo demee ba fi nga war a régler temps bi soo bësee commencé pour jouer dem ba fi nga war a réglé temps bi option temps bi foofu noonu euh, dañ koy def comme genre green yi nga xam doo doo ci am accès euh, maanaam doo ko mën a modifier ak My League bi léegi Evoke V4 point 0 point 0 nag Evoke dana la jox droit nga mën a modifier li nga xam si ne mooy temps mais gars nag s'il vous plaît bu leen fàtte sus ngeen aimé vidéo bi aimé am na solo euh, trop bu leen fàtte ngeen like loxo boobu ngeen gis ci wér pour vidéo bi amee fii léegi dañuy dem ci beneen changement bi bi am ci Evolve V4 point 0 point 0 après mise à jour bi voilà léegi beneen beneen bi mooy léegi Evolve après mise à bi da ngay am droit nga mën a changer li nga xam si ne mooy météo bi mooy comme image yooyu ngeen ne dinaa leen tegal image foofu après da ngeen comme da nga mën a da nga am option moo di météo bi par exemple mën nga koo def mu terrain bi di nees wala muy wala muy taw saar euh, yooyu daal wala mën mën naa nees xam nga e-football doo mais doo gis taw nees mais e-football après mise à jour bi da nga da ngay mën a gis euh, nees sa terre da nga mën a aussi euh, mën a gis aussi si pluie par rapport ak e-football 2024 ak 2023 voilà lé voilà léegi loolu mooy deuxième changement bi léegi dañuy dem directement ci troisième changement léegi beneen changement bi mooy ci contrôle de jeu yi ci si contrôle de jeu yi dañ ci yokk beneen dañ ci yokk beneen euh, beneen beneen beneen contrôle de jeu boo xam si ne day tudd smart assist euh, par exemple ñu dem ñu explique leen boo leen déggee contrôle de jeu mooy boo leen déggee de jeu mooy mooy comme ça boo jouer li ngay utiliser pour jouer yooyu noonu la ñuy wax contrôle de jeu léegi de jeu sa boobu noonu dañ ci yokk par exemple dañu ci yokk smart assist ñoom euh, moom lañ ci yokk pour améliorer li nga xamante ne moo di bi dañ ci yokk beneen façon contrôle de jeu waaw léegi affaire yi nii ngeen gis passe profondeur dégagement passe yooyu noonu ñuy contrôler sax mais nag mën nañ ko see yokkee noonu ne mën naa doon comme ça saaru par exemple saaru tir tir moof en ah, tir moof saaru tir moof nga da ngay rëdd sa mën nañ ko see yokk mais dañ ci yokk danañ si yokk contrôle de sa boobu noonu te smart assist voilà léegi dernier changement bi mooy après après mise bi il faut dañ la may possibilité nga mën a recruter euh, Neymar ak Messi loolu mooy dernier changement bi mais comme ni ma leen ko waxee rek bu leen fàtte suus ngeen abonné bu leen fàtte abonné bu fekk abonné bu fàtte suus nga abonné s'il vous plaît bu leen fàtte aussi ngeen like vidéo bi aussi bu leen fàtte ngeen abonné pour ñu mën a yegg 30 000 abonné